Touba tey comme dëkk yëpp ci senegal dund na ay jafe-jafe ci wàllu transport askan wi yow biir Touba xëy ñu ñiy bëgg a liggéey ñi bëgg a dox seeni soxla waaye gisuñu benn ndaamaar boo xam ne mi ci kaw tali bi li ko waral nag transporteur yi grève bi nga xam moom la ñu woote di naqarlu lenn yi ci xam ne moom la ñu jànkuwanteeg ci kaw tali bi. chauffeur transport yi sonn nañ sot surtout chauffeur taxi yi ñooy tuubaa ñoo gën a sonn lu baree ci laxasu njàpp mu metti di ñu sonn coono yoo xam liggéey bi doxul foo ne ñu jàpp la yu baree bari moo ci nekk euh, yoo xam ne bëgg nañ ñu dimbale ñu ci waaw bëgg nañ ñu dimbale ci état bi daal bëgg nañ ñu dimbale ñu baax parce que liggéey bi doxul te euh, boromi njaboot ñoo fi nekk waaw bëgg nañ ñu dimbale ñu bu baax. ñun Sëfër Dóor waar rek lañ xam fu kilifa jëm ñun ñoo koy yóbbu kilifa aada fu mu jëm ñoo ko yóbbu kilifa xalifa général fu mu jëm Sëfër a koy yóbbu. président fu mu jëm safoor a ko yóbbu kon nag war nañ ñoo delloo suñ njukkal bu baax a baax a baax di ñu di ñu jàppale di ñu doole ndax ñun jàppale gi mooy nañ ñu yombalal suñ dem ak dikk yërëm ñu ñu mën a góorgóorlu parce que góorgóorlu yot suñu njaboot rek instant ñun ci loolu la ñuy dox kon kooku neex naa jàppale ki nga xam ne day góorgóorlu lu mu yot ak njabootam ak di ci dimbale waale askan wi kooku desaa kon jàppale ko jaadu na mais nag euh, di seetaan nañu torop wax dëgg yàlla boole kook daal mitital bi metti na too lu mën a ñàkk la too ay doomi réew mi lañ waaw duñu ay nigérien duñu ay malien ñëpp ay sénégalais lañ ñëpp nationalité sénégalais lañ yor kon dèjà war nañ ñoo jàppale bu baax a baax ci suñu liggéey bi bañ mën a yeggal liggéey bi fu ñu fu fuñ ko bëgg rek ñu eggale ko fa ak jàmm. fu ñu la jaar la ñun ay ay membre lañ nag yoo xam ne dañoo am ay njiit. njid yoy nak ñong seen gannaaw ñom bu ñu ñoo taxaw leen ñu taxaw bu ñu ñoo départ leen ñu départ ñooñ dong lañu ñoom amatu leen lu ñu ne lu leen nakari nakare nañ waaw seen nakar moy suñu nakar lool dong la mom demu ñu fenn taxawuñu fenn dañoo gara suñu oto toog di deglu ndigal dañ ñoon taxaw leen ñu taxaw bu bu départ dañu ko bu doon fi ba wër yu dee it bu ñu ñoon taxaw leen dañuy taxaw rek bëgg noonu xam ba xam lan mo waral grève bi ci bop yan yan point mo leen lu leen nakari naqari ñu ko lool lool mo mënu si ko mënu si ta wax lepp ñepp li ci nekk bari na mom ndax moom chauffeur mom bo départoon fi yow dép client donc yeb la bala ñoo dem jànnatu gi da nga tek sa bët waaw loolu mom nga ci tek sa bët muy manam gis nga ko mutation yi ñi ñu bëgg indaat yi gis nga ko dégg liñ ci wax kon ñun kooku ñun ñi neew doole kon fu ñu jëm ñun ñun kay dañoo wat watal bo waté ñoo dañoo waté ngir bëggoon ku ñu dimbali loolu dong nga tax ñu def dañuy ba légui nga loolu lañu bëgg suñu jinn nak ñom mom lay dëgg-dëgg euh, problème bi ñom ñoko xam ñoo tax ñu ñu taxaw leen ñom nak ñom ñoo ngi seen gënaaw rek waaye dëgg deug deug yi manam li tax ñom njiit ye ya ñom ño ci am part de responsabilité. transporteur yi nak feynal nañ ci ay jafé jafé yi nga xamné ne wara seen grève bi li ci melne ne mu bari mi nga xamné tak der ñi leen koy japp ci kaw tali bi ak permu a point ak yeneen ke yeneen yo xamné ne ngi koy naqarlu. léegi mom bari na sax mais dina la ci sidel ben point rek parce que euh gasoil bi cher na. Euh, dund bi cher na encore te lépp ci ñun ci góorgóorlu rek suñ oto yi ci lañ mën a jël luñ jël luñ dundale suñ njaboot mais lépp bu ñu yombaloon lépp rek wàllum gasoil beeg ak xeetu dund gi yëpp ci ci jàppale ñu ci liggéey bi la kon bu ñu dimbale ci loolu it ak permis jafe na essence bi euh, miite oto jafe na fi ne nii njàpp mi metti na lool moom daal li liñ mën a wax lépp bëriwul daal mais bu ñu dimbale woon te yàlla tax ñu yombaloon ñu suñ liggéey bi ñu mën a dundal suñ njaboot moom rek moom jàmm na ñooy wax dëgg yàlla parce que ñoom daal metti métti na daal métti na lool. waaw grève bi ñun ñoo ngi toog rek di dégloo comme que suñuy njiit dañ wax taxaw leen ñun ñoo ngi toog di dégloo euh, fu ñu teg rek foofu la ñuy féete ñun oto yëpp ngi gaare ñun ñoo ngi dégloo fii ba 10 jours bu ñuy woon taxaw leen rek dañuy taxaw parce que taxawloo woon nañu lu gën a métti loolu état bi taxawloo woon nañu ko te dañoo taxaw kon bu ñu suñu njiit waxee taxawal ñun dañuy taxaw. di leen déglu. Ah, waaw waaye loolu léegi mooy ne suñu njiitu ñoo ñoo ñoo ñu war a jàppale ndax ban ne jooju na dañu gerew la nga xam ne mooy gerew dañoo toog responsable waxtaan ak ñoom bu ñu waxtaanee ak ñoom nag ñoom ci seen bopp ñu wax leen liñ bëgg ñu xool lañ cay man ñu def ko bu ko defee jàmm na béy. borom seera yi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom kawtali bi rawatina fii ci Touba ñoom seen bamba maasene fi ndax ñoom bu ñu sañoon grève bi diire lu tollu fukki fan ndax ñoom fi ñu daan dem fi la daan yóbbu fukki dërëm léegi cent franc moo la fi yóbbu yàpp deux cent aw oh, wow 1000 francs mu nga yeb dañ koy yebee 1000 lu ko mën yeb dañ koy yebee waaw. barke Serigne Ba mu nekk ñaari at waaw mu nekk ñaari at garab yàlla nekk ñaari at waaw. non garab yi instant neex na moom waaw. paas bi waaw pas paas bi yokk ndax 100 francs la waaw. garab gi garab gi am mu ne mu ne un mois waaw. mooy loolu amul ragal. waa nice kay ñoo ngi ci seen bopp bu baax waa gis nañ ci suñu bopp bu baax ci garab bi de waaw buñ sañal mu continuer waaw am un mois waaw waaw garab bi baax na si ñun trop ah 100 francs la def kay xam naa suba 200 la ñuy def sax fukki dërëm. téeméer la ñuy yabee téeméer fii fii amul luñ fi xool waaw ndax borom sareet yi defuñ dara chaque jour ñuy tuumaal naan dañuy sàcc dañuy tux dañuy naan sàngara te yàlla seen defuñ dara. suñu liggéey lañ nekk yoo suñu kër ah. waaw di jox suñuy dépasse ñu amuñ kenn soxla liggéey lañ xam wàcc. Ah, essai moom 100 100 la rek mais xam naa mais xam naa suba ci kanam suba ma xam naa gars yi yokkaat 200 200 rek ku amul dooleem amul neexal kenn. jafe-jafe yi yi nga xam ne moom la askan wu Touba dund tey jii état bu senegal war na koo gis jël si matuwaay ba nga xamee ni grève fi mel nii dana gën a gëj ci dëkk bu sell bi ci waye nak nit ñi yërëm liñ leen nit waye mënu mënu leena a nak nag ba tax nga it nga fab sa bop mom malan mom doo ko sànge kenn sa malaan doo ko jël diko sang sànge kenn waaw metti na lool metti na parce que da nga leen yërëm quoi dañuy ñew am na ñoo xam taamuñuy saret duñ dugg ay mas ñoo dugg ay saret wala tamu taamuñu saret te muji saret li lañu ñu dugg fii ñu bari dañ fi ñew naan yóbbuñu ah, mënu ñu leena yóbbu kon mm, metti na trop mais nak euh, si ñun la gëna metti parce que ñun yi nga xam ne toujours ñoo ngi dund loolu Euh, nañ ñaan suñu borom dimbale ñu lii lépp jeex waaw bu ko defee jàmm ñëwaat ñu àndaat doon benn parce que mënuñoo tàqali ko ñu état ak kii mënuñoo taax safoor ak policier mënut a tàqali ko safoor ak gendarme mënut a tàqali ko kon nañ ñaan jàmm quoi waaw nañ ñaan suñu borom defal ñu jàmm.